wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi di leen ziar bu baax a baax a baax te di leen jox seen wàccuwaay gannaaw ba nga xamee ne ziyaara na ñëpp baalu ñëpp xaq si julli tabaski gi ñu jóge li fi def ci jaamu yàlla ak ci tiyaaba yépp yàlla nañu ko subhanahu wa taala nangul yàlla bu mu doon suñu mujj tabaski waaye yàlla bu mu doon ay ngistal su ñun lépp yàlla na tabaraka wa taala tax lépp lu ñu fi def rek yàlla na ko yàlla nangu te fulal ñu ko te may ñu ñu fekkee ay déwén yu bëree bëri tabarakallahu bu ko defee ñi ngi ci seen émission bi ñuy wax Al nga xam ne làmb na lépp tabaarakallaahu dañuy ñëw tey nag di waxtaane lu am solo te mooy julli moom lañuy ñuy waxtaane tey insha allah waaye balaa ñuy wax dara ci moom dañuy njëkkee ci li nga xam ne mun mënta ñàkk nga xam ne ab charte la ci julli ba pare te mooy li ñuy wax at tahaara mooy ak làpp xam naa ne point boobu rek la ñuy waxtaane tey fas yéene kaa topp nag benn par benn ca charte ya ak sa njàpp ma ba àgg sa julli ga insha allahu farata yeeg sunne yeeg yépp danañ ko waxtaane incha allah bu ko defee fa tabaarakallaahu tey dañuy ñëw ci li ñuy wax atahaara te mooy ak làpp laab nag su ñu ko waxee benn charte la boo xam ne charte bu kenn mënta jéggi la charte la boo xam ne kenn mënu ko jéggi kenn mënu lu mënu la julli te fekk defaloo li ñuy wax laab a tahaaratu nag waajibatun bil kitaabi wa sunna lu war la ci téere bi ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere bi bu ñu ko waxee mooy alquranul karim andi na ko suñu boroom subhaanahu wa taala wax na ne wa in kuntum junuban fattaharu euh, bu fekkente ne dangeen a am lu ñuy wax janaba fa taxaroo na ngeen laab te mooy na ngeen sangu bu dellu waxaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir waaw sa yére yi na ko laabal loolu moo ñu ci intéressé ndax ci laab lañuy ñuy waxtaanee bu defee mu ne ko yére yi na laab laab nag bokkut ak set ñaar la yoo xam ne dañu koy jaawale laab ak set bokkuñ tabaarakallaahu ñu ngi nuyu suñu sëriñ ba sëriñ Cheikh si démb ziar bi nga xam ne mbokku taalibe yi ñu ngi ko doon def te muy ziar bi nga xam ne moom lañ doon amal bu ñu jullee tabaski ba pare di ko ziare suñu góor googu nga xam ne moo ñu jàngal moo ñu yar moo ñu defal lépp am na yoo xam ne sax mu ne su egg ndax sa xol dafay daal di tooy waaye si biir waxtaan wi mu doon def la ca am solo dégg naa ko mu wax ne laab ak set bokkuñu te muy loo xam ne kenn mënu koo dindi nit mën na set lool set wicc waaye fekk laabul waaye nit tamit mën na tilim lool fekk laab na loolu tamit lu jara ràññee la la moom laab mu nekk nag loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da ko bëgg ci jullit bi waaye lu war la ci moom ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahirin suñu borom subhanahu wa taala bëgg na ñi nga xamante ne dañuy tuub di dellu ci moom waaye bëgg na ñi nga xam ne fu ñu toll ñi ngi taqoo ak laab euh, mu nekk loo xamante ne dañu ko xawa a sàggane si biir jamono waaye nag kenn mënu la jaamu yàlla fekk jaaruloo ci làpp boo ko dee def loo def du sotti moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax miftaaxu salaati at tahuur nee na caabi julli mooy làpp kon julli bu fekkente ne am na caabi te caabi moom ku ne xam na ne moom mooy tijji mbir ba nga mën a dugg ci biir caabi jooju nag nee na mooy laab kon boo mënula laab wala amuloo ak laab mënuloo mënuloo julli yan yàlla yal nañu si yàlla musal bu dellu waxaat ne moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa tuqbalu salaatun bi gayri tahuurin nee na suñu borom subhanahu wa du nangu julli goo xam ne àndut ak laab mu mel ne loolu nag moom laab dañu ko war a jàng comme la ma waxoon ba li passé boo ko jàngul doo ko mën a doo ko mën a pratiquer faaw da koy jàng dem ñu jàngal la ko nga mën ko pratiquer moo tax Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu di wax sa téerim boobu faakihatu tulaab di wax ne taallamu kayfiyata tahaara wa kammilu l acdaa bilwaqaara mu ne wa aktharu lcumuumi yalcabuuna alyawma bidduhri fa yubtiluuna salaatahum mu ne id daaka chartun waajibun wala yuxaffif amrahu ya saaxibu mu ne taallamu na ngeen ni jàng kayfiyata tahaara naka la ñuy laabee na ngeen ko jàng naka la ñuy laabee nee na ngeen ko jàng ah, mu ne wa kammilul aada na ngeen di matal cër yi waaye bil waxaare ngeen di ko def ci ak respe na di matal cër yi waaye ngeen di ko def ci maanaam respe mooy nay mat sëkk bu dara manqué mu ne ñi gën a bëri tey dañuy Euh, dañuy dañuy dañuy foye dañuy foye ak laab bu ko defee bu ñu ko foyee nag fa yubtiluuna dañuy yàq salaatuhum seen julli moo tax laab kenn du ko foyee dañu koy fonk topp ko benn par benn ba baa muy mat loolu mooy tax boo duggee si julli gi suñu borom man la nangul wax naa fi léegi ne suñu borom subhanahu wa du nangu julli goo xam ne àndut ak laab moo tax góor gi di ko bàyyiloo xel ndax mu ne id daaka chartun waajibun mu ne ndax laab charte la boo xam ne dafa war gannaaw charte la nag inin tafa chartun nag fa fal mashruutu muntafidun mu ne charte nag bu fekkente ne dafa dafa dàqu lañ doon sartal te daal di dàqu fekkente ne laab charte la si julli su boobaa boo laabut doo mën a am ak julli bu ko defee mu ne wala yu xafif amrahu bul oyafal mbiram moom laab yaa saaxib wala wala tu xafif amrahu bul oyofal mbiru laab kenn du ko oyafal mbir la moo xam ne dañu ko war a jàpp jàng ko xam ko di ko jëfandikoo euh, mbokkam ma Seexul Xadim da ko feelu moom it wax ci làpp ci téere boobu ñuy wax tasawudu zixaar wax ne inna taharata ladayna wajabat zikran wa zunnatan wa ijmaan sabat taarikuha bi xayri usrin uqila yuqtalu xaddan duna kufrin faaqila idi salaatu la tatimmu abada illa biha wujubuha qat'an bada tabaarakallahu mu wax ne laab euh, wajabat la day naa dafa war si ñun moom laab am borom Tuubaa moom moo wax loolu euh, zikran dafa war ci alquran wa sunnatan war ci sunna wa ijmaan ak ci ijmaa maanaam sabataat sax na zikran wa sunnatan wa ijmaan mu ne taarikuha bi xayri usrin uqila maanaam bàyyi laab ci lul benn ngànt yuqtalu xaddan mu ne kooku koo xam ne dafa bàyyi laab te amul benn ngànt ne dañ koy rey ci gëtën doona këfrin du ñu ko yéeféerloo nag mu ne faaqilaa nañu am xel di góor góorgóorlu ci laab maanaam kon boroomu xel koo xam ne nam mun a xelam ba mu ñaw moom mooy góor góorgóorlu ci laab parce que mbir la moo xam ne sëñ bi wax na na léegi bu ko oyofal boo ko oyofalee rek lépp loo def danga cee cay daanu moo tax mu ne idi salaatu laa tatimmu abada mu ne ndax julli du mat mukk illa biha lu dut ci laab waaw mu ne wujubuha qatan bada maanaam warug laab moom xat badaa def feeñ na xatan ci lu dog nekk loo xam ne lu war la boroom Tuubaa moo wax loolu nañu ko yàlla fayal euh, bu ko defee laab dafa am ñaari xaaj at taharatu xismaani zahiratun wa batinatun laab ñaari xaaj la dafa am laab goo xam ne laabu baatin la am laab goo xam ne laabu zahir la ñun nag li ñu gën a xam mooy laabu zahir gi moom la ñuy toppatoo waaye laabu baatin gi duñu ko lijjanti laabu baatin gi nag buñ ko waxee mooy laab goo xam ne maanaam ci xol la aju laabu xol nekk loo xam ne lu tumuranke la si jamono bi ñu nekk lu tumuranke la moom laabu xol moo tax fa tahaaratu lbatinatu hiya tathiru nafsi min aathaari zanbi wal maasiyati waaw laabu baatin mooy laabu biir mooy laabu xol bu ñu ko waxee mooy nga laabal sa bakkan min azaari sandi si jeexantelu bàkkaar laabal sa bakkan di bañ a def ay bàkkaar wal maasiyati ak di bañ a def ak ay moy yàlla loolu nag mi ngi mën a amee bi tawbati saadiqati min kulli zunubi wal maasi mi ngi mën a amee ci tuub goo xam ne tuub gu dëgg la ci bépp bàkkaar ak mooy yàlla yi nga tuub ci moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuhan yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen di tuub di dellu ci subhanahu wa taala na ngeen di tuub tuub goo xam ne tuub gu leer naññ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne fa inni atuubu fil yawmi mi ata maratin nee na man danaa tuub ci bis bi téeméer yoon moom sang bi moom mooy wax loolu de sallallahu alayhi wa ak li nga xamante ne suñu borom defal na ko ko ne ko inna fataxnaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar allahu akbar suñu borom ne ko ubbi nañ la ubbi gu bër waaye lépp loo defati baal nañ la ko donte yenentu sax du def bàkkaar waaye moom daan na naafila moom sang bi sal sallallahu alayhi wa sallam daan na sonn ci naafila waaye lépp ba ko euh, Aïcha radiallahu anha laajee na ko yow xanaa suñu boroom waxu la ne la yow sa bàkkaar yu njëkk yu mu yëpp jéggal na lu ko lu tax ngay sonn si jaamu yàlla yu bari mu ne ko afala akunu abdan shakuran mu ne ko ndax du ma nekk jaam boo xam ne damay sant yàlla kon jaamu yàlla gi yaa ngi koy def ngir sant yàlla bu ko def ngir ragal safara walla nga bëgg aljanna déedéet bu ko def loolu def ko ngir jaam nga boo xam ne dangay sant sa borom loo ca am jël euh, tuub nag dafa am ay charte boo demee ci lex dëri dafay wax ne sarti tuub ñett la shurutu tawbati an nadamu ala ma fata wa niyatu an laa ila zanbin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al maasiyati fi saatiha mu ne sarti tuub parce que njëkk mooy nga rëccu li nga xam ne moom moo paase li nga xam ne def nga ko ci bàkkaar te mu paase danga koy rëccu rëccu nag buñ ko waxee waxuñ nga ñëw rek rëccu rek daan na rëccu naa génn naa si déedéet rëccu mooy daf lay naqare sa biir xol nga jooy ko métti la lool loolu mooy tax duutoo sa mën a delluwaat waaye nga yéene ne bàkkaar boobu moom duutoo sa dellu waaw nga yéene boobu moom duutoo ko def abada loolu mooy tax sa tuub gi mën a dëggu ci yow li muy wax taw ba as saadiqa maanaam tuub goo xam ne tuub gu dëggu la li tax nga man koo am mooy ñetti sàtt yi faw nga dajale ko wa an yatruka al maasiyata fii saatiha in kaana mutalabisan biha waaw fekkente ne nag yaa ngi lamboo bakkaar bi nga gaaw bàyyi ko maanaam fekkente ne tuub dikkal na la fekk yaa ngi ci biir bakkaar bi bu fa nekk naan xaaral ma bàyyi ba affaire bi jeex ma doogay tuub déedéet bu la fekkee nga yor sa benn cigarette balaa cigarette bee jeex sànni ko te daw dellu ci suñu borom li muy wax naan fafirru ilallahi na ngeen daw dem ci seen borom kon tuub googu mi ngi noonu bu ko defee nga laabal sa xol min aqdaari shirki ci ay tilim tilimu bokkaale yàlla mu nekk loo xam ne moom it lu bari la si jamono bii ñu nekk moom bokkaale xam naa ne danañ ci ñëw insha allahu gën koo yaatal moom bokkaale ndax a shirk dafa bëri façon te dañu koy jaawale nit ñi dañu foog ne bokkaale yàlla mooy nga jaamu buur bu dul yàlla waaw boobu mooy bokkaale bu mag bi nga jaamu buur bu dul yàlla suñu borom loolu mooy bokkaale bu mag bi waaye nag am na yeneen xeetu bokkaale yi nekk ci suufam Seydi Aj Malick bind na si téere incha allahu danañ ko gën a yaatal boo ko defee sa xol da ko laabal ci euh, xeetu bokkaale yooyu laabal ko ci sikk sàkk li ñuy wax sikki sàkk nga am li ñuy wax yaqiin laabal ko ci ay alxasad li wax keñaan waaw ak soxor ak bañ nit di rëy rëylu yooyu yëpp nit ki dafa daf ko waral laabal si xolom te jamono bi loolu moo sonal nit ñi waaw ak lu ñuy wax ujbu maanaam def dara ba pare di ko yéem loolu yëpp feebaru xol la ak li ñuy wax arriya mooy ngistal di def benn jëf ba pare la ngay def yàlla taxut waaye ay doomu aadama moom moo tax nga di ko def boobu tamit lu yàqu jëf la lañ ci yàlla musal loolu yëpp mbiru xol la xol boobu nag dañ ko war a laabal ak li ñuy wax wasumaa déggtal déggtal maanaam lii de dama koy def waaye dama bëgg ñu dégg ma rek doo ca am tiyaaba ña lay déglu bu ñu la ba dégg jeex na looy def rek def ko li wajhillaahi taala def ko ngir yàlla bu ko defee loolu yépp mi ngi amee ci li ñuy wax ixlaas wal yaqiin wa xubbil xayri wal xilmi maanaam li ñuy wax euh, euh, sellal moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin digal digaluma leen lu ngeen jaamu yàlla waaye ngeen sellal jaamu gi li wax ixlaas moom it boo ko toppee mën na buntu mën na émission yooyu yëpp insha allahu bu ñu yàlla dimbalee danañ ci ñëw waaye nit ki daal dafay def lu ñuy wax xubbil xayri maanaam bëggul bëgguloo xam ni yiw la tiyaaba lii suñu borom subhanahu wa taala di wax fastabixu fastabixul xayraati ila allahi marjiakum jamian na ngeen di njëkkalante ay yiw ndax yéen ñëpp ci man ngeen di dellu ci ëllëg na ngeen di njëkkalante ay yiw waaye bañ di njëkkalante wàllu àdduna kon njëkkalante gi foofu lañ ko waroon a jëmale mooy njëkkalante suñu borom subhanahu wa taala njëkkalante ak mbaax njëkkalante yiw foofu lañuy waroon a nekk waaye dafa mel na nekkuñu foofu bu ko defee nit ki war na laabal xolam ci def lu ñuy wax at tawaadon mooy toroxlu hmm? wa iradatu waj illaahi ak namm ngir jëmm yàlla rek waaw lépp nag mi ngi amee ci bi kulli niyaati wal imaali saaliha mi ngi amee ci yéene ju baax ak jëf ju sell la kon bu ko defee loolu mooy li ñuy wax fa tahaaratul baatina mooy laabu biir te mooy tahaaratul qalb mooy nga laabal sa xol nit ki nag bu àggee foofu ci ci laabu xol xam naa day dugg ci côté tasawuf waaw moo tax duñ ci sori insha allahu li ñu gën a euh, yitteel nag mooy ñëw ci laab gi nga xam ne moom la ñuy wax laab pour mën a jaamu yàlla bu ko defee al tahaaratu al zahira hiya tahaaratul xabasi wa tahaaratul mooy laabu biti gi ñuy gis mooy laab ci li ñuy wax xabas laab ci li ñuy wax xadas fa tahaaratul xabasi takunu bi izalati najasaati bilmaahi tahuur min libaasil musalli wa badanihi wa makaanihi euh, laabu xabas buñ ko waxee mi ngi ne ci dañal sobe maanaam dañee ko bil maahi nga dindee ko ak ndox moo xam ne ndox mu laab la ci yére ki nga xam ne moom moo bëgg a julli maanaam boo demee ba bëgg julli wala ngay def jaamu yàlla faaw nga laabal sa yére yi mu bañ a am benn sobe wa badanihi sa yaram bi sa yaram bi faw nga laabal ko ba nga xam ne benn sobe du si nekk waaye wa makaanihi place bi ngay julli moo xam sa jaada nga yore wala basan wala lu mu mën a doon fexeel ba mu am benn xeetu sobe loolu la ñuy wax tahaaratul xabas bu ko defee tahaaratul xadas moom mooy li ñuy wax alwuduhu wal xuslu wa tayammum waaw taharatul xadas mooy li nga xam ne dafa li génn si nit ki la moo tax ñu koy faral di wax laabu toj bu amee nag li la mën a laabal mooy euh, ndox mu laab mooy maa ul mutlax li ñuy wax maa ul mutlax ndox moo xam ne laab na ci lépp lu mën a doon laab na ci luñ mën a jëfandikoo laab na ci loo xam ne mënuñu koo jëfandikoo loolu la wax maa ul lax wa huwa albaqi ala asli xalqatihi bi xaytu lam yuxaalit shay'un yanfaku anhu xaaliban najisan kaana aw tahiran maawul mutlax mooy ndox moo xam ne na ko yàlla wàcce woon sa cosaanam la noonu la mel dara soppiwu ko maanaam li ci ëpp daal mooy dara soppiwu ko ni mu mel rek noonu rek la mel dara soppiwut ndox moomu moo xam lu am sobe la moo xam loo xam ne amul sobe léegi léegi liy soppi sa ndox dafay doon loo xam ne lu laab la lu mel suukar wala ataaya wala yu mel noonu mën na soppi sa ndox waaye ndox moomu danga ko mën a jëfandikoo si sa wàllu aada waaye nag bu dee sa wàllu jaamu yàlla mënta tane sa wàllu aada mooy ndox moo xam ne danga ko yor suukar ñëw tàbbisi wala ataaya wala leneen ndox moomu dina mën a ataayawaat dina mën a euh, def leneen loo xam ne wàllu aada la waaye bu dee wàllu jaamu yàlla lu mel ni julli jàngu alquran ya ca aju du ko man léegi-léegi ndox mi li koy soppi dafay doon loo xam ne sobe la lu mel ndox moo xam ne saabu moom moo si tuuru wala omo yu mel noonu ndox moomu mënul dara doo si mën a uh, jaamu yàlla waaye doo si man a doo ko mën a jëfandikoo it sa wàllu aada wala boog danga ko mën a jëfandikoo ci wàllu aada lu mel ne danga si mën a fóot ak waaye jaamu yàlla doo si mën a def bu ko defee am na ndox moo xam ne moom sobe si boppam moom moo koy soppi sobe ndox moo xam ne uh, lu mel ne ab tuur ndox wala ay cabinet moom moo si dugg ndox moomu mënuloo koo jëfandikoo ci sa wàllu aada mënuloo ko jëfandikoo ci sa wàllu jaamu yàlla loolu la ñuy wax maa ul mutlax maa ul mutlax daal bu ñu ko waxee mooy ndox moo xam ne dara soppiku moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax wa anzalna min as-samaa'i maahan tahura waaw wàccee nañ ci asamaan ndox moo xam ne ndox mu laab la ku ne xam na ne ñu ngi ci euh, jamono jooju di jamonoy nawet suñu boroom di wàccee ndox mi yàlla na ko wàcce euh, Euh, ci ci ci ci barke yàlla bu mu doon ndox moo xam ne dafay doon suñu musiba waaye dafay doon ndox moo xam ne nañu jig li bëgg lépp suñu wàllu àddina bu ko defee mu mu mën kesee jaarale ñu doxal ko bu ko defee ndox moomu ndox la moo xam ne léegi-léegi li koy soppi dafay dëkkaale ak moom léegi-léegi lu mel ne ndoxu teen wala ndoxu géej ndoxu géej laab na doonte dafa saf xorom mën nañ koo jëfandikoo ci wàllu boo bëggee sangu boo bëggee jàpp ndoxu teen léegi-léegi li koy soppi kon a xam na ne ndoxu siyaan yi euh, dafay dafay dafay zone du mel na comme ndox yi waaye nag li ko soppi comme dafa dëkkaale ak moom ndox moomu dafay mën a jaamu yàlla danga koy tànq mu zone bi ba doo ko ñemee jëfandikoo waaye nag mën naa jàpp mën naa sangu farata mën na lépp bu defee ñu bàyyi xel loolu nit ki nag bu jógee ci euh, laab dafay dem ci li ñuy wax alwuduhu ba tey xeetu laab la mooy njàpp li ñuy wax alwuduhu waa suñu boroom subhanahu wa taala moom it farataal ko mu nekk loo xam ne ni ñu war a jànge julli moom it noonu lañ ko war a jàngee di ko bàyyi xel bu baax a baax danañ ko gën a yaatal insha allahu euh, taxaw ci leeral ko génn farata yi génne sunna yi génn mandub yi génn makruhaat yi moom mu ngi sa jàllee dañuy ñëw ci li ñuy wax euh, shurut salaati mooy charte julli julli moom balaa nga koy euh, def dafa am ay jaar-jaar yoo xam ne si ngay jaar étape par étape la ba baa ngay àgg si julli moo tax julli nekkul lu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fi juge li ma doon gën a dénkaane mooy julli ak jaam ne inna salaata wa mamlukan axiru ma awsa bihi l fi xaalati alami mu ne julli day ak jaam moom la yonent bi salallahu alayhi wa sallam jamono bi mu fi jógee doon gën a dénkaane ñu war ko gën a bàyyi xel nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala bi mu koy farataal xeetu jaam yàlla yëpp parce que mi ngi ko farataale ci suuf waaye julli moom euh, màggaayam ak fooraayam moo tax dafa woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw asamaan fa la ko joxee julli ba mu ñëwee lam ko jox si julli bëri na lool xam naa ne bu fekkonte ne ñu ngi ko farataal ba jamono bii dana métti lool si ñun waaye nag euh, juróom fukki julli la ko joxoon bi mu wàññee ko dem ba egg ci yonentu yàlla Moussa mu ne ko sa borom lan la la jox mu ne ko sama borom de jox na ma julli mu ne ko ñaata julli la la jox mu ne ko jox na ma euh, juróom fukki julli mu ne ko loolu bari na de juróom fukki julli man de sama xeet ñaari julli lañ leen joxoon ñaar rek ci journée bi te mënuñ ko woon a matale yow rek ñu jox la juróom fukk demal nga ñaan sa boroom mu wàññi la lii ndax bari na si saw xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waññee ko dem si boromam ne ko dama bëggoon nga wàññil ma julli gi ndax dafay diis si sama xeet mu ne ko wàññi naa si juróom mu des 45 mu demaat ci yonentu yàlla Moussa ne suñu borom day wàññil na ma juróomi julli mu des 45 mu ne ko demal nag mu wàññi daal la 45 bëri na noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di baagante diggante suñu boroom ak yonentu yàlla Moussa mu koy wàññil ba mu des juróomi julli muy li ñuy wax suba tusbaar tàkkusaan timis géeye juróomi julli yooyu moo ci des te juróom fukk la woon kon nag li jara def jàngat mooy Euh, euh, ku ci joxoon juróom fukki julli ñu di ko wàññi di ko wàññi ba mu des juróomi julli te juróomi julli mënuñu koo matale sax da gis koo xam ne bu xëyee dana bàyyi ba timis wala balaa buy tëdd ci lay dajale juróomi julli yëpp di ko julli dañu wax ne li gën a garaaw ba bokk na ci bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi mooy li ñuy wax taaxiru salaati an awqaatiha maanaam yéex a julli ba waxtu ba paase julli suñu borom bi mu ko wàccee it da wutal ay waxtu du heure bu la nga koy def inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquta nee julli dama ko wutal waxtu si jullit ñi du heure bu la neex nga julli moo tax suñu borom subhanahu wa bi muy jàngale di jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arayta alladi yukazibu bid din fa dalika alladi yadu al wala yaxuddu ala taami almiskin fa waylun lilmusallin alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraa'uuna wa yamnacuuna almaacuun saxaaba yi radiallahu anhum ba ñu déggee fa waylun lilmusallin dañoo tiit ñoom ñëpp kenn ànd ak sa sago ñu daaw ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko suñu borom day fa waylun lil musallina la wax maanaam ñi ñi julli danaa leen buggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxut ñu julli waaye hum yu aqirunaha an awqaatiha mooy ñi nga xam ne dañu koy yéexe ba waxtu ba paase. nee nañ ñooñu lay wax ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba waxtu julli ba paase ñu doog a julli nee nañ ñooñu la ñuy mbugal kon foofu ab laaj war na fi jóge damay ndegam ki fonk julli di ko def ci gannaaw waxtu wi lañuy buggal ki nga xam ne defu ko kooku moom lan mooy fayam. loolu moom lu jar a la te boo xoolee jamono bii ñu toll jullit joxuñu ko dayoo bi ñu ko war a jox maanaam fonkuñu ko rawatina euh, suñu mbokku jigéen ñi tabaarakallaahu la yàlla xam doy na bàyyi ba euh, guddi rek nga dajale julli yëpp bëgg ko julli lu ko gën a garaaw amul euh, nañu ko bàyyi xel te di ko def ci waxtu wi lu yomb la julli boo ko xoolee juróomi minute ñeenti minute nga def ko lum la man di fekk lum la man di fekk ngal la arrêté loola dem julli ji boo paree nekkaat ca la nga nekkoon euh, Seydi Aji Malik wax na ne taariku awqaatin li xidmati cheyqihi ka aabidi asnaamin bi xeyri miraay nee na bàyyi ay wax bàyyi waxtu julli ngir sa liggéeyu sëriñ walla sa sa sa sa liggéeyu sa liggéeyu way wayjur wala liggéeyu ku mën a doon nga faat benn waxtu julli nee na yaag ni jaamu xërëm yéen a yem kan nañ ci yàlla musal dara da ko jëru lépp loo mën di nekk lépp loo mën di ne bu julli jotee rek bàyyi ko fa dem jox yàlla lamu moom bu ko defee Euh, wax nañ ne maam borom Touba radiallahu anhu dafa am ay taalibe yu ko doon liggéeyal ñu di ko liggéeyal di liggéey ba julli tisbaar jot na bañ a bañ a julli gi maanaam bañ a arrêté liggéey bi sëñ bi dem julli ji ba ñëw fekk leen ñuy liggéey mu ne leen lan moo tax ba nit ñuy julli arrêté wu leen li ngeen di def dem julli ji ba ba ngeen déggee nodd gi fan ngeen tolloon ñu ne ko ñun de ñu ngi tolloon fii mu ne lépp da koy tasaat ngeen ngeen yàq ko ndax loolu amatul njariñ ñu tas lañ defaroon lépp ba àgg foofa mooy leen dem leen ngeen julli ñu dem julli ji ñëwaat tàmbaliwaat foofa mu ne leen waaw kay nii la mu ngeen nekkee si mbir ba julli jot da ngeen koy bàyyi dem julli ji mu mel ne léegi nag li xew mooy dafa garaaw dañ koy dajale and ñenn ñi duñ ko def boo waxee ñu ne walla jullit la waaye jullit la boo xam ne maanaam du ma pratiquer waaw gëm naa yàlla waaye nag duma ma jëfe ma wax na loolu amut al imaanu moom bil qalbi la waaye wa sadaqahu al amal ay jëf moom moo koy dëggal moom ngëm yàlla gi ngëm yàlla boo ko waxee ba pare looy jëf la ci say cër ñu di ko gis boo nee gëm naa yàlla ba pare da ngay pratiquer di julli di woor di joxe asaka di aj màkka ñu xam ne yow sa jullit wér na waaye li xew léegi moom yàlla nuñ ci yàlla musal yàlla nuñ ci yàlla musal bu ko defee julli li salaati nuurun azimun tashriqu bihi qulubul musallina wala yanaaluhu illa alxaashiun waaw nee na julli dafa am ay leer yu mag boo xam ne dafay feeñ ci xolu ñuy julli waaye walaa yanaaluhu illa alxaashiun mu ne leer googu nag kenn mënu ko am lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy toroxlu buñ duggee si julli mooy toroxlu dellu ci yàlla nitu yàlla yi buñ masaan di kabbar taxaw ne allahu akbar boo leen pikiiree jamee pikiir duñ ko yëg ndax egg na seen borom bu yàgg ñun nag léegi dañuy julli di def yu kenn xamut wala nga dugg si jàkka ji julli ki nga dend ak nga tafa portable te biir julli gi loolu kenn xamul noo koy tuddee loolu moo tax nag li suñu borom di wax inna salaata tanha anil fahshaahi wal munkar xaw ñoo def problème neena na julli dafay tere bépp ñaawteef ak lu bon maanaam kuy julli du mën a def benn xeetu lu bon ku julli mënu ko loolu moo nekk nag suñu problème maanaam ay jullit lañ waaye pratique bi moo des moo tax dëkk bi jaxasoo loolu dëkk bi lu nekk nga fiy dégg yàlla nañ ci yàlla musal nag ci lépp loo xam ne ñu ngi koy digg lépp loo xam ne rek yàlla wax na ko ci ak jullit bu dëggu yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu def ñu ay jullit yu dëggu def ñu ay jullit yoo xam ne na ko saxaaba yi daan dundee noonu lañ koy dundee mu nekk nag lu jafe si biir jamono nekku jafe-jafe-jafe nga xam ne boo ko dee respecté sax nit ñi dafa am fu ñu lay féetalee waaw dañ lay ber dañuy wax ne kii nangam-nangam waaw kon nag nañu bàyyi xel loolu te xam ne julli moom mooy benn benn benn kii bi nga xam ne su baaxee yowmal am sa lépp ay baax wax nañ ne suñu téeree jëf lépp lu ñu def ci àdduna yàlla da koo def ci ay téere nga xam ne bu ñu demee yowmal xiyaam dalay wax iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma alayka xasiba sa téere jëf mi ngi nii yaa ko jëfoon lii maa ko defoon nga di ko jàng comme ni nga tiimee livre di jàng maa defoon nangam maa defoon nangam maa sàccoon nangam maa dóoroon nangam kon euh, loolu nit ki bàyyee xel war na di xool ay jëfam bu ko nit ki di bàyyee xel war na xool ay jëfam lépp da taxaw sa kanamu borom ni lii maa ko def waaw iqra kitaabaka jàngal sa téere bi tey suñu borom ne la yaay rek la sa bopp téere boobu nag wax nañ ne suñu borom bu fa fekkee julli julli gi baax du lijjanti leneen li nga def waaw lu ban loo mos a def dootu ko lijjanti danaan comme julli baax na yóbbu leen ko aljanna bu fekkee sa téere jëf julli normalu day daal di wax ne comme julli normal lu baax lu mas a def gisuma ko yóbbu leen ko safara wala iyaazu billah yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal te ñu ñu ñu si ñu si tàggat xale yi bu baax a baax a baax mu ñuy julli nañu woo njaboot gi ñu ñëw ndax xale wax nañ ne euh, amul bakkaar waaye nag bu defee tiyaaba dañ koy jox ay waajuram kon nag nañu ko bàyyi xel bu baax a baax incha allahu danañ ko gën a yaatal moom julli waaw la ca am say farataak ay sunnaak ay mëndóob yëpp bii di ñëw incha allahu émission bii di ñëw danañ ko jàngale li ñu bëgg mooy nit ki kam farata julli waaw danañ ko ko limal benn par benn ne ko fatiha farata la rukon danañ ko ko jàngal bu mu jeex takk bu ko nag ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ñu ngi jaajëfal mbokk yëpp di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla defal xéewal yal nañu yàlla defal euh, li nga xamante ne santaane na ko mu yomb ci ñun allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaa wa arina albatila albatila warzuqna jtinaaba allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaa wa arina albatila albatila warzuqna jtinaaba yàlla yàlla nag ñu wan dëgg ñu mën koo topp yàlla nag ñu wan it ay caaxaan te xéewal ñu ñu mën koo bàyyi kon bu ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ziyaare mbokk yëpp di baalu ñépp xaq borom xam-xam yeeg saas yeeg yëpp ñu ngi leen di jéggalu di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin in uridu illa lislaa ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh